Vox Art tey ñi ngi dalal koo xam ne ndaanaan la koo xam ne wax dëgg fa yàlla kenn dootu ko présenté ci paysage musical sénégalaise ndaxte ñëw na defi lu kenn deful ci li nga xam ne mooy wàllu taasu kooku mooy Secka Secka ci loo ne sant yàlla ak di nuyu internet yu Vox Art yëpp di leen wax ni yàlla at mi ñu dugg yàlla doon atum jàmm. tey Secka tey gis nañu fan yi yëpp ñi ngi gis ñi ngi dégg publicité. ci événement yi nga xam ne moom ngay mal mais bala ñu bala ñuy wax ci événement yooyu Secka fan la newoon jamono yi passé waaw jàmbaar dawul dafa wuti doole jamono yi yëpp damay waaj pour génne album ci loolu laa nekk mu tombeek nag ci at mu bees mi ñu defaat guddi aaw yi comme niñ ko daan defee bii di huitième édition waajtaay yeeg préparation yi ci loolu rek lañ nekk. concept guddi aaw yi lu tax guddi aaw yi. est-ce que yeneen jigéen ñi du duñ ci gis seen bopp guddi aawo yi ñaareel na fi ñetteel yi boo amee ay fans yoo xam ne ñaareel lañu wala ñetteel lañu est-ce que ñoom duñ duñ ci gis seen bopp waaw aawo xam nga comme ni ma ko jàppee man première daam laa leen tuddee ni ku ne sa aawo mooy sa première daam te nag jigéen ji jiitu ci yow nekk sa soxna yàlla boole leen mu muñal la lu ne eh, ngeen di ànd di bokk déem ak daqaar ba yàlla ñëw tey njukkal ko war na njukkal googu ma war nag laa boole ñu ko ndooloog ñëpp képp kuy sama moroomu góor tudde ko aaw yi jël guddi gi jox ko aaw yi mais aaw yi buñ leen ko tuddee tudde nañ ko ñëpp parce que ku dul aawo am nga yaay ju nekk aaw wala mag wala rak wala xarit te aaw yi ñoo jiitu ci kër yi muy ñaareel yi aaw yi leen xajal ñetteel yi noonu ñeenteel yi noonu célibataire yi mën nañoo mujj nekki aaw loolu tax ci aaw rek laa taxaw parce que nit mën naa dund ba dee am soxna am na aawo te nit mën naa am soxna dund ba dee te du am beneen jabar te soxna moom boo ko xisee am rek am nga aawo looloo tax ma jël guddi gi njukke la ko aawo ak képp ku topp ci moom ak képp ku bëgg a doon aawo tey ni nga ko expliqué nii mais am na ñoo xam ne est-ce que seen xel seen degré de compréhension yegg na ko. waa bis mu ne ma jot téléphone wala ma tasee jigéen guddi aaw yi nga woote demal ak aaw yi mais su ma la su ma ko waxee lii ma la wax day xam ne lii ma ko wax yanu na maanaa ñu ànd ci. mais est-ce que mun nga toll foo toll nga justifier loolu. waaw mais guddi aaw yi yow ñëw nga ci ñëwaat nga ci xam nga ni chaque année ñaareel yi fay ëpp sax aaw yi wala ñetteel yi parce que ñoom ñooy ànd feete ñoom ñooy ñëw jàppale si aaw xam ne nag aaw a ñaareel yi ñoo leen di jàppale nag mm-hmm. ñoom ñooy ñëw ànd ak ñoom ok tey ñu gis ne guddi aaw yi ren bi dafa particulier ndaxte dafa am ko xam ne artiste bu mag la muy Wally di sa rakk nga xam ne tey def ngeen duo moom dala sentir yow nga sentir ko tey sa digganteek Wally ban complicité ngeen am waaw weesuwul complicité mag ak rakkam artiste ak moroomam nit ku baax la nit ku am cër la nit ku ma la moom vraiment loolu mooy suñ complicité guddi aaw yi ren incha allah boo àndee ak dogal yàlla mooy première participation mu ñëw participer si parce que nag aaw yi ci seen bopp ñoo ne ma buñ sañoon ren seen invité balaa ko lay nekk waaw Ah. mais mais tey moom mooy njëkk a def démarche ñëw ci yow seet la noo mën naa ne seet la pour nga def ak moom duo sa premier duo ak waali ni mu demee waaw ni mu demee mooy daf ma woo téléphone grand na nga def man ko maa ngi fi mu ne ma dama bëgg a def benn morceau te yow laa ci sentir ma ko ciy sant nag di ko ci gërëm ndax moom ci orchestre li may def loo am na ñu ko fa mën wala sax ñu ma ko fa dàq ndax bay si njaay sama rakk ma nga fa amet Diouf sama rakk ma nga fa mu def choix bi ci man pour ñu def morso bi muy morso bu ma neex nag vraiment dafa ak moom morso mu jox ma ci xaalis bu bari nag vraiment ba pare oyof gi mu oyof moom ma gën a neex mu ñëw fekk ko ci studio ni ko waali su ma sañoon nga dem ci benn studio bu mag def fa lii parce que morceau bi automatiquement mu taal otoom ñu jiit lay ànd ma présenté ko nit mujj ki ma ko présenté sax moo ko mujj defal album bi. muy làmp muy làmp waaw. waaw tey lu tax complicité boobu nga am ak Wally amoo ko ak Pape Diouf. ah sama rakk la sama xarit la. non c'est dañuy waxtaan. Pape Diouf dafa def Bercy am invité wu la demoo Bercy ba mm-hmm. Yves Niang demul bersi ba ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. te yow ku ne xam na ne. ndaanaan bu mag nga ci côté bi ngay ci sa domaine donc tey Pape Diouf ak lu mu métti métti ak lu war a mën a xew respect waroon na mën a dox seen diggante mu ne la ah grand dama bëgg nga ñëw ci sama berse bi nga accompagner ma nga gunge ma ci berse bi Pape Diouf invité wu ma mais teewul Pape Diouf di sama rakk di sama xarit. aussi mais mais lu tax mais mais tax mais lu tax invité wu la. non maa ngi woon Bercy. mais man man Secka xam naa la xam naa ne nitu ful la nga. yow ku la invité wul doo dem. non maa ngi woon Bercy. Bercy Pape Diouf ñëpp boo boo laajee soxnaam wala Pape Diouf. mais da nga ne invité wu la. waaw mais ma teewul dem naa Bercy xam nga man dama jàpp ni gis nga askan boo ci teralee kenn teral nga ñëpp Pape Diouf mënul invité ñëpp. am déet noo yow yow Pikine mais mais côté pikin yow yaa représenté Pikine yow tey bu ñu nee benn artiste ñaari artiste pikin kenn mënu laa génne maanaam buñ ñu nee taasu Sénégal bala ñu ne kenn dañu ne Secka. waaw mais dama lay wax benn affaire nag man mën naa def mbir te du ma invité Pape Diouf te pourtant du tee mu nekk sama rak nekk sama xarit lu toll ni Bercy ak ni mu toll bi mooy premier Bercy si xel day fattu te bis bu ne li la gën a la gën a jege loolu ngay fàtte bersi ba maa nga fa woon muy fête bu neex bu sénégalais yi waaj ak gambien yi ak ñu nekk ci diaspora bi ñëpp ma ko ci ñaanal yàlla yàlla na ko defaat te saa yu ko defee mu gën a neex mais man li may jàpp rek mooy Pape Diouf moomul ambassade yi Pape Diouf moomul consulat yi mën na am bëgg-bëggu invité ma mën na am sañ-sañu invité ma mais Bercy xam nga du du du Sorano du Grand Théâtre tey bu doon Sorano la wala Grand Théâtre invité wu ma war na ma mën a naqari mais aussi tamit nit ñi dañuy fàtte loo loo bëgg a bokkoo bëgg bëgg bokk bu la ci yàlla boolewul doo ci bokk xëy na Bercy boobu yàlla boolewuma ci mais maa ngi fa woon France seetaan naa Bercy bi ba mu jeex takk le euh, lendemain Bercy man ak Pape Diouf fanaan ci benn soirée bu bët set. lendemain bi mu la gisee yow lu la wax. non non bi mu ma gisee am mbégte ak bànneex ni ma grand nekkate yaa ngi fi ma ni ko waaw. c'est que ma ne woon ne ma ni ko si maa ngi fi parce que man tamit li ma yóbbu du Bercy bi moom ma yóbbu Italie laa demoon. bi ma demee Italie Bercy bi ñëw ma dem France pour jàppale ji sama rak sama xarit parce que sama frère la waruma jàpp ni invité wu ma. mën na maa bëgg a invité am possibilité. tey ñu gis concurrence bi di mu mel ci wàllu musique bi tey bu ñu nee concurrence ñu gis Wally côté bi mu nekkee Pape jouf côté bi mu nekkee ñu waroon a demlante parce que daawoon nañu demlante dès bi man xam naa li may wax mais ñu dem ba ci biir lii am kenn ku ci dem donc wax di jóge fu ne ñii di camp Pape jouf di saaga fii kaaw Wally di def di répondre fii est-ce que loolu tamit concurrence bu rafet mooy seen njëriñ ñoom ñaar ñëpp très bien dina tax Waly góorgóorlu dina tax Pape Diouf góorgóorlu ñaari coups yi mënuñoo bokk balka Pape juuf doomu sénégalais la am ñu ko bëgg Waly di doomu sénégalais am ñu ko bëgg am ñu bëgg Pape juuf bëgg Waly am ñoo xam ne bëgguñu ci kenn ci ñoom ñaar déggoo ma de am na ñoo xam ne Waly lañ bëgg am na ñoo xam ne Pape Diouf lañ bëgg am ñu bëgg Pape Diouf bëgg Waly am ñoo xam ne bëgguñu Pape Diouf bëggu yàlla loolu ma àdduna moo tëdde noonu. mais est-ce laaj na loolu. waaw xam nga nag tey nga bëgg ma par force nit du ko def yow yaay def lu mu la bëggee dama koy faral di wax ci morceau yi Pape Diouf wala Waly ku leen bañee bëgg bu leen déglu parce que xam nga ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngi liggéey man li ma mën a waat tey boo gisoon Pape Diouf ni ko loo joteeg Waly mun laa wax lii la. boo jot gisoon waale ni ko loo joteek Pape Diouf mënu la wax lii la loolu ñoom njëkkee wuñ ko fi duñ ko mujjee ah concurrence bii ñu nekkee bu ko raw amoon na ci diggante Youssou Ndour ak Thione Seck wala keneen ak keneen te pourtant ñoom jote wuñ dara. mais musique moo laaj loolu. musique moo laaj loolu. fans yi ñooy def loolu. fans yi ñooy def loolu ñooy ñëw te kii ñëw ci yow ni la Secka nee na mooy ñëw ci wan ni ma Ousmane nee na ñoom daal ñoo war a moytu te góorlu te xam ni fii ñu jaar seeni mag ak seeni i baay jaar nañ fi mais nañ rafetal man loolu laa leen wax. ok tey bu ñu ñëwee aussi jóge foofu dañuy ñëw guddi aawee kañ la. le 24 janvier incha allah. Sorano. théâtre national Daniel Sorano. loolu demagoo grand théâtre. waaw parce que man nit ku da ngay am bëgg-bëgg am déet su ma demee Sorano ni ma ko mën a jote noonu laa mën a jote grand théâtre que may dégg. te nit ku ne doonte benn nit bu la sopp am nga ko xam nga Sénégal dafa baaxoo léegi ak lu événement rëy rëy kenn du ni ndax neex na ndax fees na rek la ñuy wax tey boo ñëwee ci événement bu mel ni grand grand wala Sorano doo xool ndax am na spectacle doo xool ndax am na dara ndax fees na rek ngay def ngay xool te am na ñoo xam ne man su ma demee ci spectacle ndax am na spectacle laay xool xëy na li ma bëgg am na Sorano wala bokk sama dem grand théâtre moo jotugul loolu kese la waaw. entrée bi ñaata la. 5000 VIP 10000. say parrain mën nga ma limal say waaw ku mel ni Mati Ndiaye bu Elimane Lam ci la bokk Babacar Ndiak ci la bokk Modou bu Soleil sama xarit ci la bokk ak ñu mel ni ñoom marraine d'honneur bi Guinée la dëkk bi euh, madame Fall Binte Diallo. di sama soxna xarit moom mooy marraine d'honneur bi mais bari na ay parrain du jeex wax dëgg yàlla yu nekk Amérique Europe partout ak Sénégal. lan nga réserver say say fans yi war a ñëw ci guddi aaw yi. Ah, loolu nag bu ma ko waxee la nekkatul réservation. waaw ah, mais mais mais mun nga leen ne maa ngi leen dencal lu doy waar wala dinañ def spectacle wala di nga def show wala lan def. bii mooy huitième édition te chaque année muy gën a neex te ren nag lan la rawati incha allah waaw parce que bii Euh, samay rak samay xarit dama leen invité te dinañ ñëw muy ay artistes yoo xam ne ay ñu nit ñi xam lañ vraiment. à nga xam ne moom nee la vingt 24 du jël benn engagement du jouer fenn fudul mi ngi sag mi ngi Sorano kan nga invité. mais Pape Diouf it noonu la ko waxee dina ñëw keneen noonu keneen noonu incha allah ok. lan ngay tàggatoo li may tàggatoo mooy di kontaan trop nag ci Vox Art parce que wax dëgg yàlla. loo man man man man man te wanewuñ sa man man sa man man du feeñ di kontaan ci yéen di ñaan yàlla fi ngeen bëgg egg yàlla yéen a ko xam yàlla na leen fa yàlla eggale di leen wax ni daal affaire bi mi muy guddi aaw yi mi ngi noonu ci seen loxo maa ngi ciy xaar sénégalais yëpp sénégalaise yëpp le 24 janvier incha allah théâtre national Daniel Sorano donc man tamit mën naa ne le 24 j'y serai ndaxte yow sama nit nga yàgg na donc ñu leen di jox dig daje prochainement ci si beneen émission Vox Art di leen remercier bu baax a baax a baax a baax a baax